policier la Diop day ubbeeku na ubbil la tee moo yéene kaay nañu ginnaaw ba ko gendarmerie Kër Massar dégloo waaw la Diop la milliard et le procureur ñaf ma ne la benn jega la Lat Diop day moo dem ci ab télévision waaw ne Lat Diop ci boppam kon da koo yëkkati ab police bu def benn milliard un milliard daal di ko koy dénk laa la wax laa ilaaha illallaah procureur Abdou Karim Diop ba mu déggee loolu day daal di soto saisiru dénk liggéey ba brigade de recherche bu Kër Massar waaw ne leen déglu leen Lat Diop mi de waaye moom Lat Diop moomee weddi na tuuma yee de les ko yéene kaane tuuma yooyee nga xam ne kon dañ ko koo tuumaal day waaw ne daa sàcc ab xaalis moom Lat Diop moomee mujj naa ñibbi aha ginnaaw bañ ko dégloo waaw ba pare daal di contre attaqué aha direct news ne waaw parce que Lat Diop day dana yóbbu ca yoon ka nga xam ni moo ko tuumaal di Ibou Dieng yor yor yéene kaa ne gis nga Lat Diop mi daa yàpp ñi a xam ni maanaam ñoom lañ dénk nguur gi tey aha waaw parce que mi ngi leen di défier sampal leen dënd laa la wax yéene kaa yi Serigne Saliou Gueye yi day di yor yor waaw nee na mais benn waay moo toog ci plateau télé ne Lat moo ko woo ba mu ñëw la ma woo laa la wax ci jamono ji nga xam ne maanaam kon nguuru fay-fay geeg sàll-sàll geeg fii noot nit ñi laa wax waaw ne ma dama bëgg kon nga jël walis li def un milliard daal di ma koy dencal en attendant calme bi di dellu soit manifestation yi di jeex Ibou Diène maa ngi koy wàcce alxuraanul karim laa la wax bu dee li may wax ni amul moo ma wax som bi ubbi ma walis bi ca noona jël sécurité ak ay jeunes ñu commencé garder këram parce man Ibou Diène li may ñax laay dundee lii ko day mooy la ma fi doon tuumaal transport maa ko ci dugal te seetaan naa Bakary Cissé journaliste mi nekkoon record waaw li muy expliqué doon naxarlu lan mooy ndayuk Lat Diop mi la ñu jël ko naan dañ koy def ay ministre des sports ah Bakary Cissé xamle woon ne Coupe d'Afrique bi ñu génn ni la scandale la musiba mbaaba kumba laa la wax jël ay xawma ay influenceur lañ xawma ay xuusma ñàpp ay solo influenceur laa lay wax ni le ñoo xam ne nekkewuñ fa woon dara lu dul saaga responsable yi nekkoon ci opposition bi kese ku ci a yor tribune ba kat ne fa ñu ne fay xuloo ak responsable football yi xëccoog ñoom ay ticket stade yoor yoor yéene kaay ne waaye moom la Diop day weddi na kon tuuma yooyee ba pare ne dana yóbbu ca yoon Ibou Dieng yéene kaay gi la Lat Diop mi nga xam ne kon moom moo jiite woon LONASE waaw may wax mu naan day taakale ministre enseignement supérieur di docteur Abdourahmane Diouf naan waaw nee nañ man lat budget bi nga xam ne moom la ñu waroon a jëfandikoo ci atu yàlla moom laa ne tungaañ waaye nañ xam ne man du daw te danaa jàkkaarloog lépp lu mën di ñëw may bëggal xamal waa état ne leen man administrateur de classe exceptionnelle laa fenn laa dul daw yor yor yéene kaa la ministre Abdourahmane Diouf day doon dénoncé ak a naqarlu yorin gu moom la Lat Diop yore woon ministre des sports ne keroog bi collègue am madame Khady Diène ñëwee ministère des sports atu yàlla lañ war a dépensé yëpp ndekete waa i dépensé na ko ci coupe d' afrique ba léegi nag dañuy débrouiller ngir jeux olympiques yi la ministre bi daal di xool fu muy jëlee budget eh waay sax yéen kaa gi ne Lat Diop yamu ca ba mu nekkee directeur LONASE waaw mais fii la woo yenn ci taskatu xabaar yi xaalis bi ko jaare ci ay convention laa la ba pare continuer di doxi ay soxlaam ak libération yéen waaw déglu nañ ka nga xam ne moo ko tuumaal di Ibou Dieng